sant Amath Loum. Amath euh, dañuy waxtaan ci lu jëm ci immigration clandestine ndax euh, dëmb sénégalais yu bari gis nañ image yi nga xam ne nag euh, jëli nañ leen fi nga xam ne moom mooy diwaanu Mbour lan nga mën a sànni ci kàddu par rapport ak voyage bi nga xam ne nag jeunes yi jël nañ ko ak doole. bon di ñaawlu affaire yi rek vraiment parce que boo gisee jeunes yu am même age que yow. di jël yenn risques yii nii vraiment nekk na loo xamante ne ni lu metti la lu metti la lu triste la vraiment man daal euh, naqarlu naa ko ba fu mu yem di wax aussi état bi mu jël si ay précaution parce que lii dafa ëpp depuis un certain temps ñu ngi constaté genre fléau yu mel nii te boo xoolee tamit presque Afrique lépp la fépp fépp ñëppay jël gaal bi di dem te nekk na loo xamante ne ni lu metti la vraiment jeunes yi man li may wax mooy jeune moo nekk euh, avenir ëllëg moo nekk avenir u réew jeune ak lu mu metti metti metti dafa war a am patience yaa a des jeunes entrepreneurs y a des jeunes yoo xamante ni dañuy demal seen bopp te man aussi loolu laa gëm goo ma ne euh, réew mi dafa metti wala dafa dëgër wala dafa def ni wala dafa def naa ku si nekk da ngay góorgóorlu si secteur bi nga nekk yalla jàppale la ci nga mën avancer mais pa nga jël yenn risque yi ni di jël ay gal gal amul bankas amul dara amul sécurité amul dara ngay jël des fois ñu japp leen nga perte xaliss bu ngi ci def di ci def ay 300000 ay 400000 jeune bu conscient bo yoré yenn yenn yenn somme yooyu yenn somme yoy non war nga investir si ben secteur ba gis ci sa bop man Daouda Dieng laa tudd. tay nak dañuy waxtaan ak ñi xamna ñoy askan bi di.

lol deg nañ ko gis nañ ko wa en fait ndaw yi defuñu dara nañu wante deg deg be metti même man min waak yow ni la la de buma luma damay dem gis nga gis nga lu dol ñooñu man jombuma bila walay taala dégg be da metti de saa way da ngay da ngay jël da ngay jël sa moto gan pour nga liggey mbaa nga jël sa nga jël sa xaliss pour nga pour nga effort nga investir way sax da melni wani ko de parce que gars yi ñu doon gars yi ñu doon jàppee ndaw yi métti na trop te ñun ñu lolu ci kontor Ousmane Sonko ak Diomaye ñom fuñu ñu ñom ñoom nek tay ñun ñi ñi ndaw yi ñun ñoo dem voter teg loon te loon ko fofu kon boba ñun ñun ñoo ñun boba ñom ñoo wara a ñoom ñoo wara a demali ndaw ñi bu kenn du am xalat pour kenn du am xalat bi nga jëlee gal pour nga dem. mais est-ce que euh, yakamti wu len tam ndax ki nga xam mom moy le premier ministre. dafagul euh, li nga xam ne mooy DPJ bi xamul lan ban programme la réservé pour ndaw yi waaye ci yeneen euh, structure yi lu mel ne DER ñu ngi wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci liggéeyu ndaw yi est-ce que yaakamtiwu leen tam bëgg a génn ci dëkk bi te xamul lan lu ñu réservé pour ndaw yi. ah saa yi ku nekk rek ak say xalaat. ndax maanaam picc bii nii jombul kenn wax dëgg yàlla ñu siy gën gënuñu ñu gënuñu ñu jëdd wax dëgg yàlla kon nag nañ gën a am patience am mature. boo xamante ne ñu xaar suñu dem bu jotee rek ñu daal dem yek si si si bon si bonne voie té baña duggul ndax geej amul amul bankas waaw. kon nak nañ gëna amal mature ak téwlu rek waaw baña démé fugu dal waaw mais luma la wax sang rek lool la mom motax tax mu demee noonu gars yi nañ bàyyi yenn parole yi ñu koy jëma di di gañ nit yoy baaxul. billahi wallahi taala ndaw yi ak euh, xalé jigéen yi surtout.

ku ne daal ku ne daal mu ngi wax ne ñi dañuy war ñi dañuy war ndaw yi ñoom tamit nañu waxante dëgg gisu seen bopp de bu gisoon seen bopp gaan du jël gaal di dem de nañu waxante dëgg bila wala taala même man mi di yow ak yow nii na su ma gisoon lu leer tey tey tey tey la de ah man damay dem ñi di wax ni dañuy dem uti xëy nga nar a jël 400 000 francs wala 500 000 francs dugal ko ci gaal pour mu yóbbu la ba Espagne est ce que boo ko dugaloon ci benn euh, affaire fii nii mënu la euh, jox lu ëpp lool. say da nga jël sa 1 million wala ma da nga jël sa 1 million saay ah pour nga investir Saragan teg ko fii nii gars yi ñëw waa mairie ñëw saccagé saccagé ko waa maa ngi jékki-jékki ñu jël benn benn fooy ne la fii nii dañ ko interdit et tout ça fekk jël nga sa xaalis gaan dugal si loolu gaan affaire ñoo nu ko am noonu nga ko mujjee noonu nga mujjee noonu nga mujjee pate. est-ce euh, amul euh, li nga xam ne nag euh, mun nañ ko jàpp ci demi ndax boo gisee jeunes yi nga xam ne nag mataguñu 15 ans léeg ay xale yu ndaw waxootuma la góor yi waaye jigéen yi yëpp léegi ñu ngi ci immigration clandestine bi ay tout tànk ñi nga xam ne amaana sa français sa dégg ko ñu dugal la ci gaal ne la demal ci dëkk bi nga xam ne nag gaal bi fa teer que ça soit mu doon bu anglais bi espagnol bi wala li nga xam ne mooy portugais bi l'essentiel daal jeunes yi phénomène bu ñu leen di sandi maanaam nga nekk sa dëkk xamoo lan nga re ba génn ci est-ce que tugal dina la gën a yomb. waaw boo gisee ñu am ay moins de quinze ans des fois nga gis ñu enceinte sax ay jigéen yu ëmb jël risque jël gaal vraiment nekk na loo xamante ne ni lu metti la. xalé yi ngay gis ñu jël gal amuñu som yoruñu xaaliss dañ leena jox ñi ngay gis ñu leen di jox ay 400000 di le gal 400000 450000 ba 500000 nga ci gis ay xalé yu ndaw yo xamanteni ni mënu ñoo lijeenti 500 francs par jour lolu responsabilité kilifa yi la. yaakaaro ni bu buñu jëlé xaaliss bobu nonu duggal ko ci dëkk bi mun na leen jural dara. waaw man dé mom sama bop la xam man mom su man mais ma ko sama dëkk fi ni am si liggéey boo xamante ne si mën a jàpp loo xamante yàlla dina mën a sutural moo ma gënal ndaxte yoonu ndox moom xamoo da nga yeggi xamoo doo yeggi bu gaal ga amee problème boo dëppee nga ñàkk sa xaalis sa énergie dem bu gaal ga yeegulee boo ñàkkee sa bakkan nga perte say say mbokk perte mun na mun boo xamante ni doy na waar lool man moom dëgg yàlla moom su ma sañoon moom xam nga ñu am loo xamante moo leen gënal ñu toog si réew mi liggéey a teew si a dal xel par rapport ak li sa jàngat bu ndaw par rapport ak euh, li nga xam ne moom mooy immigration clandestine. ah affaire bi moom métti na trop doy na waar lool yàlla xam na loolu ah affaire bi réew mi réew mi xaw a jaxasoo rek léegi da ngay am liggéey xam nga te liggéey du dox sa nekk si lee nga bëgg a dem xam nga géej gi moom fi mu toll nii moom affaire yi daa gën a takkarnaas am na temps moom xawoon na sauvé tuuti ñi mu bàyyi mu sedd quoi mais léegi moom dafa gën a takkarnaas ndaxte booy li ma gën a jaaxal si booy sax booy dañuy dañuy dégg ne gaal gi am na problème bañ teg seen bët. ay nit ñi bëri dee ñi gën ay niiw ñi teg seen bët booy gën a pare pour dem affaire boobu jaaxal na ma lool. am na ñu léeg dañuy ni li nga xam ne moom mooy euh, pression sociale maanaam euh, waa kër yi que ñu leen ne euh, diw na yi moo tax ñu bëree mu ñu ñu ngi dem lan nga xalaat ci pression sociale boobu tam. waaw loolu moom am na ñu koy def moom am na ñu koy def am na ñoo xam seen doom yi tey gannaaw yàlla bi ñu demee ñoom ñoo la si ñàkk lu ñu dem. am na ñoo xam ne sax ñoom ñooy jox yenn seen doom yenn somme pour ñu dem am na ñoo xam ne ñoo koy. ñoom ñu si am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag a mag mag te man li may wax mooy en cas cas bu euh, gaal bu ñu mënti jàpp dañoo war a def ay enquête ba xam ñan ñoo leen yebal man loolu si secteur boobu lay waxee dañoo war a jël parents yi ñoom ñoo yor responsabilité yooyu noonu xale fan lay dajalee quatre cent mille wala cinq cent mille bay jël gaal. peut-être ñom ak condition lu ñu metti metti metti waru ñoo sacrifier seen doom ñu ci bari nak ñom ñoy sacrifier seen doom wa metti na nak nga jël gal ñak sa bakkan metti na trop tiis na aussi mais ñu ci bari parents ñoo leen di sacrifier. condition yi nga gisoon tam démb ñu indi newi euh pour yobul lan ñeene ci seug yi di wax képp ki nga xam xamé nga sa sa doom nga ñëw nga ñëw jël néew bi ñi nga xam xamuñu ñu dal di leen euh, sul ci wetu tafess bi. ban image la la jox. non image bi vraiment métti na métti na trop parce que tey jii nii yow mënoo sax identifier ay corps ndax lu ñu yàgg si biir géej bi dem nga ba mun a identifier benn koor am na ñoo xam ne dañuy yàqu am na ñoo xamante ne nii pour nga gis leen ne ci famille bii la bokk wala pour nga gis leen xàmmee leen sax dafay dafa dafa métti vraiment lii moom. état bi war na see jóg war na see jóg bu baax a baax a baax a baax waaw te te li may wax mooy jeunes yi jeune du yàkkamti xale du yàkkamti nit doo yàkkamti sa àdduna danga nga war a def ndànk-ndànk tepp-tepp moo gën bul gis nit ñi dem nga ne dinaa dem bul gis nit ñi yegg nga ne dinaa yegg nit ku si nekk yàlla daf la jagleel daf la tracer sa chemin day si def ndànk-ndànk man daal loolu laa am limay may conseiller pour jeunesse bi. lan mo nek part de responsabilité gouvernement bi tam parce que ñu si bëri dañ lay wax ni gouvernement bee ñu waxone euh, dëkk bi dina neex dinañ am liguey du euh, gouvernement bi ni ah, même jamono Macky Sall bobo ba tay ñuy gis ni gaay di gëna dem est-ce que japp nga ni gouvernement bi tam lu leen waroon def nañ. waaw parce que immigration clandestine euh, partout c'est Afrique même européens yi sax dañ koy def. Mm-hmm. dafa nek phénomène bo xamantene ni pour la l'alal, secteur yep la secteur yep yep la euh, man damay wax particulièrement Sénégal jeunes dem ñuy dem parce que euh, président bu ñew programme nga woluko ko dem ko au moins war nga patience ko parce que euh, président Diomaye

euh, au premier ministre parce que man lima ma gis mooy réew mi dina changer te incha dina changer waaw parce que man jox naa confiance te lu ñu def je suis d'accord pour l'instant je suis à l'écoute te lu ñu def je suis d'accord. d'accord yo, yo. yo, yow yow Seydou ma bëgg a yàqal. est que jàppoon tam influence ci seen côté xarit yi maanaam ñu jot a dem. ba àgg foofu nu def ay vidéo di leen wax ni ñëw leen fii nii dafa nekk bërëb bi nga xam ne boole ku ñëw rek dina am euh, fu muy daane dooleem est-ce que loolu tam influencé wul ñu bëri tam. waaw loolu tamit dëgg la ndaxte réew mi tamit métti na lool sax métti na lool mais am na yooyu am na ci yenn boo yoo xamante ni seen dem moom lan ma ko waral mooy soit seen xarit ni àndal jékki-jékki ñu woo leen téléphone ne leen man de yegg naa xam nga wan leen preuve appel vidéo ne leen xoolee fii ni mel nangam ak nangam ñëwal ak yoon bi laa jaar ba yegg si ak fii léegi naa pare booy loolu dugg seen xel na léegi maanaam duñ gis leen lu dem mënoo wax a wax bi ñu bëggee dem moom mënoo wax ba duñ dem mën nañu dem sa Sénégal am problème ñu retourné aat day ñëw day laa yeneen somme yoo xamante ni pour demaat ñoom moom bi pare xasee ba euh, bëgg a dem moom kenn mënu ci dara xanaa yàlla rek yàlla indi xéwal kese moo tax ñu mën a ñàkk dem te réew mi métti na lool tamit nag métti na de dëgg fa yàlla métti na morom ndaw yi par rapport ak li nga xam ne moom mooy situation parce que wax nga ko sànq euh, bu ñuy demee ba di am ay information yu gën a parce que 2021

kooku mooy gën a pare pour dem sa par rapport yow mi nga xam ne demoo ko woon man loolu la moo a gën a ñoom loolu ñoom ñooy gën a pare pour dem te en plus ñoom bis bu ñu a demaat a yegg si ñoom ndaxte affaire bi métti na am na trop na yàlla nañu yàlla defal daal yàlla may ñu xewal boo xamante dañu fii liggéey di gis suñu li xew lu nekk ñu ko teewee daal moom moo gën daal moo ñu gënal dëgg fi moo ñu gënal. ban message ngay lancé tam à l'endroit de suñu yaay yi nga xam ne léeg ay nattu jàmbur la jël di ko jox seen doom yi ne leen tukki leen forcé leen à la limite sax pour ñu mën a génn dëkk bi. waaw loolu moom dëgg loolu moom am na moom parfois dañuy teggi natt pour lan pour seen doom dugg ci gaal pour dem mais natt ba ngay teggi noon tey boo ko tegee tey nga wut sa benn place bu baax dugal fa sa doom nag am jàppa ci lii wala nga wut benn matériel jox ko na ko jàppa ci yaakaar naa loolu moo gën a am sens ba ba doole ñëw bis ba doole ne a jaar a am sens a te moo gën a wóor tamit moo gën a ko dugal si gaal moom tamit taw leeru la da nga yegg leeru la gaag dana yegg a maanaam boo ba nga xamante yow nga mën a jaar si dem mboolu laa moo gën a dal xel waajur tamit nañu jàppale bon jàppale seen doom yi bi ñu amee yenn somm yi dañ leen ubbi place fii ñu am si liñ jàpp ba nga xamante ni doole am na bu doole amee bis bi yàlla doog leen ñu mën a jaar si yoon normal bi jaar si yoon normal bi ñu dem loolu daal mu ëpp sens ta mu ëpp solo te moom lañ gën a bëgg moo nekk suñu bëgg-bëgg dëgg fi yàlla dañu jàppale rek yenn natt yi moom jarul dugal si ay gaal gaal moom sa doon na xamante ni moom du ma ci ñaax kenn pour mu dugg ci nag du ma ci ñaax kenn pour mu dugg ci dëgg fi yàlla du ma ñaax kenn mu dugg ci